ala sayyidina muhammad ibn abdullah yaa himmata sayqi uxduri lana bi haasa almaxdari wal tuxti fi bi nasaratin tuxti lana bi safarin mbokki téléspectateur TFM religion ñu ngi santaat yàlla di julli ci sangi-sangi yi sallallahu alayhi wa di ñëw ak yéen rek ci seen pirim mi ci koor gi ci waxtu wi ñu ngi ci sóoratu luqmaan di war a dalee ci walaw anna maa fil ardi min sajaratil axlaamun wal baxru yamadoo min baadi shabatul abxur maa nafidat kalimatullah foofu lañ war a commencé bu ko defee aaya bi lu ko waral li tax mu wàcc boo ñëwee ci jaril mu jëlee ci xekramatu mu ne ahlul kitaab dañoo laaj yonent bi ci wàllu ruuxu yonent bi ne xuli ruuxu min amri rabbi yasalunaka ani ruuhu quli ruuhu min amri rabbi wa maa utitu min al ilmi illaa qalilan bi ne ruuxu yàlla moo ko xam yàlla xam-xam lu néew la ciy joxe yoori ne ko yaa ne yàlla lu néew lay joxe ci xam-xam ñun de yàlla jox nañu tawraat ta tawraat xikmatu la bu ko defee itam ta alxuraan ne ku yàlla jox xikmatu jox na la yiw gu bari yàlla ne yonent bi ne walaw anna maa fil ardi min sajarati axlaam wal baxaru yammudu min baadi sabil afoor maanaam xam-xamu tawraat lu néew la ci xam-xami yàlla bi ci benn riwaaya beneen riwaaya mu ne yonent ba mu ñëwee Madinatul Munawwara yow di dañoo ñëw ci moom ne ko yow yaa wax ne wa maa utitu min al ilmi illa qalilan sa alquran yàlla ji moo xam ne xam-xam lu néew la ci joxe koo ci nam mu ñun wala araab yi yonent bi na ko ñëpp laa ci namu bu ko defee nag yoor yi na ko ñun ñu ngi jàng tawraat te tawraat wu fiyaa tibiyaanu kulli say in kon tawraat du lu tuuti yonent bi ne tawraat dee lu tuuti le ci xam-xamu yàlla bi lii maa ngi nii ci saawi kon loolu mooy walaw anna maa fil ardi min sajaratil axlaami kon xam-xamu yàlla bi lu bari la yàlla mu ne walaw ana maa lardi bu nekkoon li nekk ci kaw suuf min sajaratin ci garab maanaam ak axlaamun muy xalima wal baxaru géej gi yammuduhu maanaam mu nekk daxam min min bax di abhorin wala nga ne wal baxaru maanaam baxarul muhit yammuduhu mu nekk daxam min baax di gannaaw baxarul muhit sabatal aboori juróom-ñaari géej nekk di ay daxa maa nafida du jeex kalimaatullaahi kàddu yàlla gi yàlla mu ne maanaam xam-xamab yàlla bi ni baree bu doon ne lépp lu nekk ci àddina ci garab gis nga lépp lu ne ci àddina ci garab bu doon ne maanaam dafa nekk di xalima baarul muy ñëw nekk daxa gannaaw baarul muy juróom-ñaari géej ñëw nekk di ay daxa nga jël xalima yépp maanaam soos ko ci géej yooyu pour di bind du tax xam-xama yàlla bi jeex kon yàlla xam-xamam lu bari la kon xam-xama yàlla bi maanaam wa maa utitu min al ilmi ilaa qalilan kenn mënu koo jeexal moo loolu la yonent bi tontoon yahud yi mu ngi noonu bu ko defee yàlla mu ne maa nafida du jeex kalimaatullaahi baati yàlla yi kàddu yàlla yi di xam-xami yàlla yi min sajaratin la wax da koo nakkiraal mbooleem garab gu ne ci àddina ba yàlla bindee àddina ba léegi garab googu da ciy dugaale kon xam-xama bi yàlla bi lu bari la inna laa naka yàlla xasiisun maanaam aju noon la ci nguuram akiimun aji xarañ la ci mbindeefam de yàlla ku noon la ci nguuram ku xarañ la ci mbindeefam maa xalqukum wala baxsakum ilaa ka nafsin waahid aaya bi lu ko wasal lu tax mu wàcc ubay ibnu xalaf ak mbooloo ñoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla bam ñuy bind maanaam ci ay jamono la toqantal mën nii ñeen fukki fan lu mu ñeen fukki fan maanaam mu nekk suux ñeen fukki fan kon nag yàlla nan lañu ñu mën a dekkale ci benn jamono boo xam ne bu bu gaaw la te bindut ñi ci noonu yàlla nag loolu la aaya bi loolu moo ko wasal mu ngi nii ma tiim ci sa aawi alal jëlaalayn bu ko defee yàlla mu ne alam tara kanaa dañoo kamut wala alam tara kanaa dangaa xamut am na laa nag maaqal ko kum maaqal ko kum déet bind gi leen yàlla bind wala baxsakun du càggan maanaam dekkal gi leen di yàlla dekkal ilaaka nafsir waahid lu dul ci genn kàddu de mooy kun fayakun yàlla mu ne loolu dafa yomb ci moom mu ne bind gi ak dekkal gi yépp maanaam ci baatu kun fayakun rek amal rek mu am la ndax ñetti étape yooyu ñuy wax tokkantal ma nii ñeent fukki fan lumbu deret ñeent fukki fan suux ñeent fukki fan loolu yépp ci kun fayakun yàlla ji la foofu yàlla daf fay jàngale dafa am lu muy jàngale rek ne gannaaw mooy jàngal nit ñi mbir mu nekk boo koy def dafay am étape par étape par étape doomu pour ci àddina sax maanaam liggéeyam ci wàllu yëngatuum ci étape étape la koy def loolu la ñuy yàlla di jàngal waaye ku mu fa yëkkoon rek bu ne amal rek dafay am ca saasa waaye nag gannaa ci noonu la la bind boo juddoo itam ci noon nga dangay juddu maanaam commencé di nàmp ba ci kanam nga commencé di di maanaam di dégg ba ci kanam nga commencé di gis ba ci kanam nga commencé di mën a toog ba ci kanam nga commencé di man a raam ba ci kanam nga commencé di mën a taxaw yàlla mbiram étape par étape la loolu rek la jublu ci nut fa xalaqa mutqa dafay jàngal doomu aadama ne ko loo bëggati ci àddina rek defal ndànk da ngay jaar fii jaar fii jaar fi waaye du ñàkk kàttanam moo tax mu ne ko maa xalqakum wala baxsakum ilaa ka nafsin waaxidatin waaxidatin yàlla mu ne maa xalqakum maanaam déet bind gim leen bind wala bastakum du càggan dekkal gim leen di dekkal ilaaka nasir waayit lulu ci genn kàddu rek mooy amal mu am yàlla mbiram dara jafewul ci lu mu ne amal rek dafay am comme ni ko bëggee inna laa naka yàlla samiun maanaam dana dégg lépp lu di wax basirun aji gis la mu ngi noonu yàlla kuy dégg lépp wante itam yàlla kuy gis la dégg yàlla nag bokkut ak dégg nit ndax dooy dégg doomu aadama dafa am fu muy yem fi ma nekk nii ci saal bi di tourner ki ne ci suuf bu waxee maa ngi ci kaw man duma ko dégg mu ngi noonu bu ko defee nag booy dégg itam dalay ñëwee ci côté yàlla nag moom lépp lay dégg te ci côté bu nekk la koy ñëwee ndax dafa mat bu ko defee itam basiir yàlla dafay gis lépp amul lu ko soxla ba du gis uteeg gisu doomu aadama studio ma nekk nii li ci gannaaw studio bi gisuma ko mu ngi noonu fi ma toog nii rek caméra bi rek laa gis ak mbaar mii wër ma waaye li ca gannaaw mënu maa musa ko waane ba gis ko yàlla nag dafay gis yépp moo tax mu ne lay sa kamis li say kon yàlla kenn melu ni moom bu ko defee yàlla mu ne ina laa naka yàlla samiun aji dégg la lépp maanaam basirun aji gis la gis goo xam ne dafa làmboo xam gis goo xam ne dara yiru ko ba du gis lépp la gis xam na lépp bu ko defee yàlla mu ne alam ndax xamoo yow yonent bi sallallahu alayhi wa ana laa naka yàlla yuuli ji dana mu xarafee maanaam dana mu dugal yuuli ji dana mu yokku layla guddi fi nahaari ci bëccëg wa yuuli ji dana mu yokk laa wax naara bëccëg fi layli ci guddi yonent bi yàlla ne ko kanaa xamoo ne maanaam bis bi 24 heures gim nekk léeg-léeg man yàlla damay fexe bëccëg bi ëpp maanaam léeg-léeg man yàlla guddi gi ëpp loolu ñëpp xam nañ ko léeg-léeg da gis ne 24 heures la moo nekk ci bis bi léeg-léeg da ngay gis ne bëccëg bi maanaam ëpp na fukki waxtoo ñaar léeg-léeg mu dem ci fukki waxtoo ñett ba da bay dugg fukk ak ñeent kon guddi gi wàññeeku na léeg-léeg maanaam guddi gi dafa yokk ci diggante maanaam waxtu xariif ak waxtu sita ak waxtu sayf maanaam jamono sedd ak jamono noor ak jamono nawet kon yàlla mu ne loolu moom moo koy def kon léeg-léeg guddi gi dana mu yokk léegi léeg guddi gi dana wàññeeku kon loolu yépp maanaam ci kàttanul yàlla la koy defee ci diggante guddeeg bëccëg mu koy yokku ci léeg-léeg mu def ko fukki waxtoog ñett ba jëm ñeent bëccëg ba moo xam bëccëg ba léeg-léeg mu def ko itam guddi lim ci jublu moom moo ko xam kon yàlla ko am kàttan la moo tax mu ne am na laa naka yàlla yuliju dana mu xarafi àllay la guddi fi naari ci bëccëg mu ngi noon de mu ëpp bu ko defee wayu ju ma xarafee naara bëccëg fi layli ci guddi maanaam jël bëccëg ëppal ko ci guddi yàlla moom ma wax ba léegi wa saqara moo tàggatal la samsa jant bi wal xamara ak weer wi kullun ku mu ci jant bi ak weer wi yajiri dana mu daw ci falagam de yàlla mu ne maa leen tàggatal jant bi mu leen di naajal wante itam maa leen tàggatal weer wi doomu aadama jant yàll nit soxla na ko ndax mënu koo ñàkk boo fi fóotoon léegi li lay waral rek jant bi naaj bu naajut sa fóot mi du mën a waw boo fi bayee dugub maanaam bu tool yi demee bay palpal bu amul naaj dugub ji du mën a waw kon doomu aadama maanaam soxla na naaj te loola fi muy mën a jóge rek ci jant bi léeg-léeg sax nga seddee gis ku génn ne xaaral ma naaj lu tuuti ci naaj bi kon naaj maanaam ndeke nit soxla na ko wante daf ñu ko tàggatal ndax naaju jant bi ni mu mel ak ni mu ni jant tàngee bu ko yàlla wisutoon ba mën a dëppoog maanaam suñ misaaj ko du baax ci ñun ndax doomu aadama dafa ñàkk kàttan man lu bari waaye jant lu tàng-tàng rek maanaam tàngooru jant bi nit dana ko mën a dékku léeg-léeg nga dégg météo ñu ne ah Kaolack ñu ngi ci nangamu degere naa ñu ngi ci nangamu degere maanaam dëkk sàngam ñu ngi ci nangamu degere ndax dëkk yooyu dañoo mën tàng waaye li ñuy tàng tàng tàng seen tàngoor yi du tàngoor wi rey nit kon tàngoor wi rey nit yàlla dafa ko wa sakara samsa wal xamara ndax yàlla du cuune du fi andi doomu yi ba pare di leen teg tàngoor woo xam ne ñoom mënuñ koo mënuñ koo supporter kon tàngoor wu am rek ci àddina maanaam doomu aadama mën na koo supporter amaan na sax dafa baax ci yaram moo tax mu ne wa sakara samsa wal xamara kullun yejjërin ila ajërin musaman kon alquran mu ngi wax lu nekk kon moo ñu tàggatal jant bi bañ mën a dund ak jant bi muy tàng tàngooram ñiy jëriñoo ci tàngooram te duñ lor am na nu ko yàlla doon wiisee rek ñun duñ mën a nekk foofu waaye tàngoor wi rey nit amul ci àddina ndax yàlla du def lool bu ko defee itam mu tàggatal la weer wi guddi ngay niit lu ci weer wi ngay loo guddi am na dëkk yoo xam ne sax amuñ courant ci weer wi rek da ngay gis bu weer bi génnee surtout bu nekkee weeru badar maanaam weer wu am fukki fan ñett fukk ñeent fukk juróom nga xam ne sopp nañ jullit bu nekk di ko oor weer bu tolloo foofu fukk ñett fukk ñeent fukk juróom da ngay gis mu leer nañ weer wi yàlla mu ne moom moo ñu ko tàggatal yàlla mu ne nag kullun yajri ila ajalin musamman ku nekk dafay daw ci fulagam maanaam ba pencam yàlla jot kon yàlla moom mooy buur boo xam ne mu am kàttan kenn amu kàttan mu ngi noonu bu ko defee nag kulun yejarin ilaa ajalin musamman laal quran wax am na lu ñuy tuddee maanaam elmu fuluk mooy lu ñuy tuddee wàllu juxraafiya loolu la ñuy tuddee ci xam-xam juxraafiya muy elmu fuluk alquran dafay wax ne wasamsu tajri li mustaqarin laa saalika taqdirul azizul alim wal qamara qadarnaaw man naasila ataaha dëkkal hurjoonul qadim jant maanaam dafa am yoon wu muy aw buy dox weer itam dafa am yoon wu muy aw téere yi indi nañ ko bu ci ne ñi jàng elmu nujum elmu fuluk danañ ci gën a mën a xuus ñu koy tuddee géographie ci ci ci xam-xam bu ko defee nag ñoom ñaar duñ mës a tasee mukk alquran wax na ne laa laa samsu yan baqi laa an tudrikal xamar wala layli saabiqu naar yàlla mu ne jant bi yellut maanaam muy jot weer jant ak weer duñ mas a daje mukk bu ñuy tasee ji rek yowmal xiyaam dafa ñëw heure bu pencam yàlla di taxaw rek jant beeg weer dinañ daje moom la alquran di wax ne wa jumea samsu wal xamar yaqulul insaani yowma isin ay nal mafar bis boo gisee jant ak weer dacee rek xamal ne pencam yàlla mu ngi taxaw kon yàlla mu ñuy wax maanaam ci jant bi ak weer wi ñoom ñaar bu ko defee yàlla mu ne maanaam wa wa saqa wa tàggatal na wa saqara tàggatal leen sam sa jant bi wal xamara ak weeru kullun ku mu ci jant bi ak weer wi yejjiri dana mu daw ci maanaam ci ab yoonam muy fëlëg mag ñu daan ko firee ngunu ilaa ajalin jëm ba ca diir musaman ba de buñ tudde ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk seen mission maanaam ba bis penc ñoom ñaar ci lañuy ñuy door a taxaw mu ngi noonu waa na laa naka yàlla xabirun aj xam la bi maa taamaloon na li ngeen di jëf yàlla mu ne li ngeen di def yépp xam na ko tëkku ñëwati na kilifa heure bu la ne looy def xam naa ko rek maanaam tëkku ñëw na bu ko defee aay bi ñuy dugg nag muy bi ànd na laa naka yàlla woo moom alxaqu mooy dëgg de yàlla mu ne moom moom mooy dëgg wa annamaa yeddoo naka lu ngeen di jaamu min dooni yées ko baatilu nen la ki def loolu maanaam ki la andil jant beeg weer yi yàlla mu ne kooku mooy borom ak dëgg ndax yàlla moo la andil jant andil la weer léegi nag mu ne li ngeen di jaamu lu dul moom neen la ndax xam nga moom dafa def ba pare teg leneen li ngay jaamu na la andil lu mel ni jant bu bëccëgee mu naajal leneen li ngay jaamu maanaam na la andil lu mel ni weer bu bëccëgee mu leeral la kon nag gannaa maanaam li ngay jaamu mantu andi jant weer kon nag bàyyi fi kooku maanaam nga dem jaamu ki andi jant weer loolu rek la bëgg a wax moo tax mu ne bi anna allah huwa waa wa ana maa yeddoo min dooni baatil mu ngi noonu moo tax yonent yàlla ibrahima ci jant beeg weer wi sax ba muy commencé dem ci yàlla fa la commencé falammaa janna alayhi layla raa kawkaban qaala haazaa rabbi gis na biddiw ne ah lii de sama borom la gis weer wi moom itam mu ne ah lii de maanaam kéemtaan la ba gisee na jant bi falammaa raa mu gisee jant mu fenk qaala haazaa akbar mu ne lii de moo gën a màgg kon maanaam yàlla lim bind doomu aadama mën na cee jaaree ba xam yàlla moom la yonent di wax ne tafakkuru fi xalqillaa wala tafakkuru fi saati fa taallukoo kon nag jant weer ci yow daal koy jaamu te mënul laa indi jant weer ak bàyyi ko loolu lay wax ci aay bi yàlla mu ne saali ko lool bi anna laa na yàlla huwa moom alxaqu mooy dëgg ndax moo indi jant ak weer wa ngeen di jaamu min dooni walis ko albaati wa anna laa naka yàlla huwa moom alaali yu mooy aji kawe kawe not moo not lépp lu mu bind yàlla moomu alkabiiru mooy aji màgg mu ngi noonu de kon yàlla mu ngi topp benn par benn saaru màkk heure bu wàccee rek yàlla dafay wax kéemtaan yi nga xam ne def na ko te kenn mënu ko def ndax musrikoon yi ñoo fa nekkoon waaye nag soxla nañ ko ci jamono jii nit ñi nga xam ne fu ñu toll ñuy weddi yàlla bu ko defee yàlla mu ne alam tara ndax xamoo anal fulka maanaam nag alam tara ndax xamoo anal fulka naka gaal jiir yi dana daw fi baari ci géej gi bi ni'matillaay maanaam ci xewal ak yàlla ji de yàlla mu ne bokk na ci li ma def te kenn manu ko te bu ngeen weddee rek leen ñi ngeen di jaamu ñu def ko mooy gaal kémtaan la ndox nga xam ne nim gaawal a labalee te li ci yéeme gaal gi nekk ci biir ndox mi doomu aadama am na foo xam ne yaa ngi fa teg gaal gi yow mi ko defar bu fa gaal gi maanaam nekkee du lab te yow mi nit mi defar gaal maanaam boo fa duggee lab comme loolu lu yéeme la boo jëloon mbuus ëf ko ba mu ëfu nga jël ko sànni ko ca géej ga lu mu yàgg-yàgg mbuus ga du lab ca kaw rek ngay gis muy feey te yow mi ëf mbuus mi defar mbuus mi da ngay lab kon yàlla moo bari kéemtaan kon yàlla mu ne moom daf leen tàggatal gaal mu mën a daw ci géej bu ko yàlla dafutoon ay weñ rek yoo dajale wala ay xànq yoo xam ne yow yaa ko keree te yow mi ko créé boo duggee ci géej lab moom miñ créé nga mën faa toog te doo lab kon yàlla ko am ké maanaam ku ku bëri kéemtaan la mu ngi noonu moo tax mu ne alam tara ndax xamoo anal fulka naka gaal te jiri dana mu daw bi bi fil baari ci géej gi bi nexmatillaay ci xewal ak yàlla léeg-léeg nga dugg ci bato bato boo xam ne maanaam eb na nit eb na ay camion camion yoo xam ne yu bari la eb na oto yoo xam ne yu bari la am na bagage yoo xam ne yu bari la doomu aadama yi njaay nekk fa maanaam dana eb doomu aadama eb lu ñuy dundee xar fa bëy yaa fa lépp maanaam ñu ngi ca bato ba ñi daw nag ca maanaam loo xam ne amul bànqaas loo xam ne amul téendekuwaay loo xam ne amul sukkandikuwaay ndox ndox yooyu yëpp amu ci ndox amul bànqaas bañ ci langaam kon lu téye gaal gi ba ba tegoo ci kaw ndox mi maanaam dugg ca biit lam nit ñi dee loolu kattanul yàlla la de du nit ki de ndax nit ki mënu ko ndax nit ki koy defar gannaaw moom bu duggoon foofu lab kon nu mën a defaree gaal te gaal du lab kon yàlla rek moo am kàttan loolu nag yàlla mu ne lu yëri yokkum daf la ko def ngir wan leen min ayaati ci kéemtaanam yàlla da leen di wan ne manu leen dara man maa man inna fi saalika na ko loolu de maanaam ma defar yàlla mu ne jël gaal muy daw ci géej te labut te ki defar gaal bu duggee ci géej lab laayateen kéemtaan la maanaam ki defar gaal digg ba waa ji àgg bu fa àggoon rek lab li kulli sabbaarin maanaam ñeel bépp muñkat ba du mooy yàlla sa kóorin kay santaakoonu xewlu borom de da koo tëgg faul sa kóor faulun mu ngi noonu yàlla mu ne daal lii yàlla da leen di wan ne man ku am kattan laa mu ngi noonu kenn amul kattan ku dul man loolu nag mu ne ñeel na kémtaan koo xam ne dana muñ ba du mooy yàlla waxoon naa la xeeti muñ ñi sabrul ala ak sabru fii ak sabru an euh, takkalewoon naa la ko ak koo xam ne santkati yàlla la yaa ngi nii taal sa gaal gi rek dugg maanaam dam lu ne nga am ko fayeeku client yi léeg-léeg bag bi jóge fii dem ba Ziguinchor léeg-léeg bag bi maanaam di dem ci yeneen dëkk yoo xam ne yu bari la Gàmbi boo fay dugg gis nga bag bi ni mel gis nga defar nga ko muy ay weñ ay xànq nga am ci loo dépassoo am ci loo suturoo nit ñi itam jàll ci loolu yëpp maanaam ci xewalu yàlla kon kuy sant loolu bokk na ci li jara maanaam sant yàlla muy noonu yàlla mu ne nag buñ duggee ci gaal gi wa isaa xasiyoom ndem muur na leen nag mawjun du si géej gi ka sulalin dañuy mujji mel ni doj de daaw oo yàlla moo li siina maanaam mbir mu ñuy way sellal loo ñeel ko addiine topp ah yàlla mu ne nag doomu bu duggee ci gaal dam ba ci kanam gis nga aay bii ñu ne wàcc na ci Hikrimatu ibn Abi Jahlin ci fatu Màkka dafa dawoon dem ca benn dëkk bu am géej léegi nag mu wax ne bu ko yàlla musalee moom dana gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ko yàlla musalee nag maanaam dafa dem ba ci kanam fi mu duggoon ci misaal rek géej ga sàmbaraay mu dem ba bëgg a muy oo yàlla ne bu ma yàlla musalee daal danaa gëm sang bi sallallahu alayhi wa sallam dam jaayanteeg moom ba ko yàlla musalee nag mu tuub ci fatu màkka noonu la ko saa yi firee muy aay bi waaye nag ñun ñëpp dañ ciy dugg dafa dafay wax ne képp doomu aadama bu nekkee ci njàqare day wax ne ee eh, yàllante woon na yàlla musal ma bu ma yàlla musalee danaa ko jaamu de gis nga léeg-léeg nga dugg ci oto oto bi di rëng-rëng di bëgg a daanu ñëpp tudd yàlla ku nekk maanaam yaa ngi wax ñi ne laa hawla wala ñi naan laa ilaha illa muhammadu rasulullah ku nekk di tudd yàlla pour bu ko yàlla musalee mu topp yàlla léeg-léeg mu ne ci gaal gi léeg-léeg da damit damit ci yi xew loolu sax neex naa misaal jamono ji ci corona bi ndax ñëpp a ngi tiit di dellu ci yàlla ne bu ñu yàlla musalee danañ jub danañ def nangam ak nangam loolu la yàlla di wax ci alquran maanaam képp ku nekk ci xat-xat rek da ngay tiit jaaxle commencé di julli waxtu julli juróom commencé di ñaan commencé di di saraxe ne ay bu ma muccee li ma defoon dootuma ko defati loolu la yàlla yàlla mu ne wa isaa xasiyoo maanaam dem muur na leen mawjun duusu géej gannaa nag ci gaal la mu continué ci waaye mu mën a dugg ci bépp xat boo xam ne doomu aadama maanaam muñ ci ñoo ñu mujj kasolul ñu mel ni ku nekk ci kaw doj maanaam ñu dem ba ci kanam rek géej gi sàmbaraay gaal gi commencé naaw ca kaw duus bi nag yëkkati ko ca kaw xam naa ñuy dem bar barsa bar sa xam nañ ko wala ñuy dem eh, eh, clandestin yi nañ xam li may wax ñoom géej gi yëkkati leen ñu tëmb ci kaw yàlla mu ne ko zulalin ñu mel ni doj ñooñu de daaw laay danañ oo yàlla muxlisiina mbir mu ñu way sellal loo ñeel ko addina topp ñu naan ñun de buñ yàlla musalee danañ topp yàlla comme ni ko ikramatu dafoon yàlla mu ne falamaan na jaawam ba mu leen musalee ilal barri maanaam ñu jëm ci jéeri ji fa minum am na ci ñoom muxtasidun koo xam ne diggu doomu na li waxoon maanaam mu ngi ci diggante gëm daal ak weddi am na koo xam ne nag gëm na waaye yàlla mu ne wa maa yajadu du weddi bi ayaatinaa suñu alquran ilaa kullu xataarin lu dul warkat kafoorin kay weddi akoon xewlu boromam yàlla mu ne doomu aadama bu nee ci jafe-jafe rek daf may oo waaye man bu ma ko musalee rek fi mu newoon rek lay ne mu ngi noonu am na ñoo xam ne bu leen yàlla musalee fi ñu nekkoon duñ ci paase dara seen julli yu bari yi ñu daan def yépp nattu bala rek seen ñaan yu bëri ya seen saraxe am na koo xam ne bu amul problème rek du saraxe am na koo xam ne heure boo ko gisee muy julli waxtu julli juróom respecté ko rek bul bu laajte dafa am problème bu ko daal am na koo xam ne heure boo gisee mu ne ci yàlla yàlla rek kay buur yàlla rek a man dafa am problème boo ko maanaam bu ko daal mu ngi noonu te bu problème ba dañee fi mu newoon rek lay ne loolu la yàlla di wax kon nag yàlla mi la muccaloon ci géej gi wala mu muccal la ci mboolem feebar wala lu la mën a dal ci àddina loo xam ne terewoon na laa nelaw tey yàlla ñëw muccal la si toppal yàlla waaye nag yàlla mu ne ku ku jógee ci loolu toppoo ko workat nga moo tax mu ne wa maa jur bi ayatina ilaa kul xattaari ndax yow waxoon nga ko te li nga waxoon defoo ko waxoon ko ne ko boo ma musalee danaa la topp te te te musaloo te toppoo ko te da ngay weddi xiwalam ndax jox na la xiwal kon nañuy topp yàlla bu neexee maanaam bu naqadee itam nañuy topp yàlla kon topp yàlla lu am njëriñ la bu neexee bu naqadee yépp bu la yàlla kiwalee rek delloo ko ci moom bu ko defee kon yooyu maanaam nekk na loo xam ne lu am solo doomu aadama bu tiitee rek dellu ci yàlla waaye nag bu amee rek ndeysaan commencé di fettirlu dafa gaaw a fàtte yàlla mu ne yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi discours à la nation la comme ni ko président Sall di defee heure bu at mi di jeex wala maanaam 4 afril bu jotee discours boobu muy def yàlla da koy def léeg-léeg léeg-léeg mu ne yaa ayyuhan naas saawi nag ni mu koy firee yaa yoon naas yaa axlu màkkata noonu la koy firee yéen waa màkk waaye ma ne gën naa yaatu loolu yéen waa àddina yéen waa Sénégal kon baax na léeg-léeg nit toog rek oo njabootam ne yéen sama njaboot ji kaay moo tax yàlla ne yaa ayyuhan naas heure bu ko waxee nag dafay indi discours boo xam ne dafa am solo kon discours yi président yi di def 4 avril maanaam di ko def 31 décembre mu ngi nii ci alxuraan yàlla mu ne yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum kon discours yooyu léeg-léeg danay baax léeg-léeg boroom kër war naa toog rek oo ñëpp ne tey bàyyiwuma kenn yéen ñëpp dama leen a soxla loolu mooy yaa ayuha naas mu ngi noonu chef de quartier bi war naa toog tey teseeg waa quartier bi yëpp mu ngi noonu damit damit damit ñëpp rek ku ne ki nga xam ne chef entreprise la war naa toog itam bis képp kuy liggéey ci entreprise rek mu ne yaa yoon naas kon nag yàlla mu ne yaa yoon naas itaqu rabbukum mu ngi def discours à la nation di wax ak maanaam population bi ndax moo leen bind saa wi nag waa Màkka la ko firee waaye ma ne gën naa yaatu loolu ndax waa àddina ah ñu déglu discours bi li muy wax yàlla mu ne yaa ayyuhan naasu e yéen nit ñi ittaqoo na ngeen ragal rabbakum seen borom bu ko defee yàlla mu ne wax saw na ngeen ragal yow man bis bis boo xam ne maanaam laa yi gis yi du jëriñ waalidin way jur an wala di ci doomam mënu koo jëriñ dara yàlla mu ne yéen nit ñi oonaa leen ba ñëpp ayu ko ne ko ah, sa discours bi lan la bindkat yëpp toog maanaam téye seen fooy ci waxin ku nekk di déglul yàlla di wax mu ne bisa ngi ñëw bis boo xam ne maanaam way jur du fa jëriñ doomam dara yàlla mu ne bisa ngi ñëw bis boo xam ne way jur du jëriñ doomam dara kon moom discours am bi daf ñuy xirtal maanaam ci ñu ragal ko ci ñu topp ko gis nga discours bu ko président di def ñëppay toog déglu ñii di yore big ñii di am téléphone di enregistré ñi naan heure sangam jot na euh, euh, discours bi commencé na yan décret lay jël président yan décret yan décret décret bu mag baa ngi nii yàlla mu ne na ngeen ko ragal am na bis buy ñëw way jur mën a lu fa doom dara yow ma yefiru maru mu ngi noonu kon pencam yàlla lay wax kon ñu bàyyi ko xel yàlla mu ngi alerté mu ngi noonu discours bi dafay ñëw pour alerter léeg-léeg discours da ci am am na yoo am day ñëw pour joxe ay décret maanaam ay décret ne nangam nangam nangam ak ay sanction bii nag daf lay alerter ne ah na nga bàyyi sa xel na bàyyi sa xel bis dana ñëw nangam ak nangam kon yàlla moo mën a jàngale moo tax yàlla mu ne ittaqoo na ngeen ragal rabbukum seen borom wax saw na ngeen ragal yow ma billaay gis du jëriñ waalidun way jur an wala di maanaam ci kum jur pencam yàlla sa baay mënu la faa jëriñ dara koo mën a bokkot ci àddina mu def lu baax nga ñëw ne diw ak ak diw bokk kenn mënu ci dara yonentu waxoon na ne yaa Fatima laa ughni anki mina laa an yow Fatima sama doom nga mënuma laa jëriñ ci yàlla dara ndax alquran wax ne fa izaa nufixa fi suuri falaa ansaaba baynahum si izin walaa yatasaaluun buñ walee bufta ba amatul mbokk amatu askan amatul dara kon nag nañ góorgóorlu ñun ñëpp jébbal suñ bopp yàlla mu ngi noonu buñ joxee yàlla ba pare ak xam jox suñu wayjur yi ak seen ak kon way jur mënu faa jariñ doom dara wala wala du jëriñ mawloodun maanaam doom moo tax mu ne wala mawloodun du càggan kuñ jur mu nekk ma fawlun wa moom jaasin muy mën a fay muy mën a jëriñ ana waalidi ci way juram say an dara yàlla mu ne safaan ba itam doom mën a lu la fa dara man maa jur xutbu samaan bi maa jur firi xati alquran bi maa jur waliyu bi maa jur borom xam-xam bi taxut de penc bi yàlla loolu la fa jëriñ de waaw sama doom boroom xam-xam la man maa jur xut bu maa jur nangam déedéet fexeel nga góorgóorlu boobaa dafay maanaam dafay fekk nga góorgóorlu boo ñëwee nag ci alquran yàlla wax na ne wala si na amono wa tabaw suriyatu bi imaani wa tabaat um suriyatuhum bi imaani alax naa bi suriyatuhum wa ma allatnaa min amali min say in yàlla mu ne ñi nga xam ne maanaam gëm nañ yàlla seen doom yi ak seen sët topp leen ci seen mbaax gi yàlla dana leen yéegal ci seen darajay bàyyi waaye nag dafa joxe condition sa baay baax na yow nga ñëw jaar sa yoonu baay yàlla dana la yéegal boo jëful li sa baay jëf yàlla ci mbaaxam mën na laa yéegal ci sa garaatab baay kon ku baax mën naa yéeg ci garaatu baayam waaye bu dee def na waaye li yàlla di dàq mooy ku deful dara sa way jur mënul laa jëriñ ci dara fee itam waxaat na ne waman salaa min abaihim ba mu ci ci xaaj suuf bi mu ngi noonu doom bu baaxee way jur ñëw baax bu àggut ca daraja ju doom ji am ci mbaax ak yàlla mën na koo yégal ci daraja yu doom ji kon yàlla itam li muy wax mooy bàyyi joo xam ne dafu dara kon daal yii fi foog nga nekk ci yoon am ku la mën a dimbale kon nag ñu bàyyi di woy sama baay di woy sama maam nangam nangam tax doo góorgóorlu ñooñ boo bokkee ci ñoom dafa tax nga gën a war a góorgóorlu sa maam boroom xam-xam la fexeel ba am xam-xam day gën a taaral rek mu ngi noonu sa maam ku ragaloon yàlla la fexeel ba ragal yàlla day gën a taaral mu ngi noonu waaye noo kese amul njëriñ fa izaa nufixa fi suur falaa ansaaba baynahum yawma izin walaa yatasaaluun maanaam Seex al Islaam dana ci nettali lu bari ci téereem bale di tafsiratul anaam fi annal xelma wal imaam maanaam di wax ne li yàq ci àddina yëpp doomi surofaaw yi ñoo ko yàq maanaam sama baay def lii sama baay def lii sama baay def nangam te ñoom nangu ñoo def dara mu ngi noonu mu daan wax ne ndokk ba yàlla amul doom ndokk ba diine ju kontewul doom kon ñu góor-góorlu fexe jaar yoonu bàyyi mu ngi noonu pour àgg ci darajay bàyyi yàlla mu ne wala mawloodun du càggan maanaam kuñ jur woo moom jaasin muy mën a fay maanaam muy mën a aar xan di ci way juram de koo xam ne da nga dam baax te sa baay deful lu baax bis penc mën a loo ko fa dara waaye nag baay ji bu jëfee lu baax ci baax maanaam bu dee àggul sax ci darajee doom ji yàlla dana ko égal ci daraja ja bu dee jëf na lu baax comme ni mu ko waxee wa man sala min abaim waaye ku jëful dara kenn mënu laa dimbale ci dara yàlla mu ne inna wax dallaahi naka daala bi yàlla bi ne péncam yàlla dana taxaw xaqun dëgg la mu ne dekki gi yàlla di wax di ko répété lu bari lu wér la mu noonu kon nag falaa taxurunakum ngella bu mu leen war alxayaatu dund bi adduniyaa bu jege jeex bii dund bii nga xam ne lu jege jeex la bu mu leen war ba du ngeen topp yàlla de walaa yaxurunakum bu mu leen war billaay ci yàlla alxuruuru waraa koon bi te mooy iblis yàlla mu ne maanaam pencem yàlla dina ñëw mooy dekki am na bis penc am na lu wér la moo ko wax ci téeréem bi mu ne kon nag bu leen fexe ba maanaam dundab addina bi wor leen addina day wor wa ma hayaatu dunia ila mataawul xuruur mu ne itam bu leen fexe ba seytaane wor leen doomu aadama dafa am yu ko yàlla boole yoo xam ne ñoo koy sonal noonu la ko yàlla bëggee nag maanaam doomu aadama am na noon bu tudd saytaane doomu aadama am na noon bu tudd àddina doomu aadama am na noon bu tudd bakkan doomu aadama am na noon bu tudd bànneexu bàkkan lii mu tasawwi foo ne yépp dëppoon nañ ci ne mooy lii gàllankoor nit ci yàlla gis nga yii buñ ci mënoon a mucc rek ñun ñëpp danañ àgg ci yàlla waaye ak a jafe moo tax sax ku bugg àgg ci yàlla ñu lay jox askar pour yooyu nga mën koo rey ndax yooyu boo ko rey doo àgg sa borom noon bii nga xam ne moom lañuy tuddee duniyaa maanaam moom lim gën a bëgg jaxasoo képp kuy jaxasoo foo toll yaa ngi ci biir nit ñi ci mboolooy maanaam àddina mën na la mënoo ci dara képp koo xam ne daal fu mu toll mu ci gaaram place yi ci mboolooy yi rek àddina mën na ko moo tax sufiyanke bu mag ba ne kun kun ilsal bayti waxtasilan kulal wa maanaam seex al islam mu ne dil taqoo sa néeg maanaam dil beru mbindee fi boo bëgg a ci yàlla kon addina moom li mu bëgg maanaam mooy dajaloo bu ko defee itam maanaam saytaane li bëgg mooy maanaam suur la bëgg suur saytaane reg rek la bëgg loolu sufiyanke bind nañ ko seen téere yi koo xam ne dafay lekk ba suur kal maanaam naan potu ndoxam kooku bu ko yëgee bu ko yëgul rek seytaane man na ko moo tax koor ñu ne dañuy jëng saytaane mooy organes yi lay jaare moo amatut ku lekkut naanu saytaane du ko mënal dara moo taxoon mag ñi ñoom ñëpp maanaam seen lekk dafa néewoon ndax seytaane heure boo reggee rek maanaam rof na la etam lu ko neex dana la ko def la fekk yaa ngi regg rek moom maanaam moo la man kon nag ñi ngi firi alxuraan ci TFM religion ci falaa taxarunakum ayaatu dunia wala yaxarunakum billaahi xurur mu ngi noonu kon seytaane moom reg lay gañee nit moo tax nit yàlla yi seen lekk dañ koo limité woon seen naan ñu limité ko lekk gu bëreeg naan gu bëri day tax seytaane man la bu ko defee itam beneen bi maanaam wax naa la ñaar wax naa la àddina li muy gañee mooy dajaloo bu bëri seytaane lekk gu bëri bu ko defee nag bakkan nelaw koo gis nelawam bëri rek bu ko yëgee bu ko yëgul rek xamal ne maanaam bakkanam moo ko not nelaw yu bari moom sa bakkan rek waaw Seexu Tijaan ñëw na ci naylul amaan fi tibbi fi tibbil gis mi wala waruwaani maanaam ci Ahmed Sukari moo ko taalif mu ne dafa am benn taalibeem bu ñëw ne ko ah sëriñ bi man de sama nelaw yu dafa bëri sama gént yi dafa bëri Seexu Tijaan ne ko li ko waral lii rek la maanaam li ngay tudd yàlla moo néew mu ne ko moo tax sa nelaw yu bari li ngay tudd yàlla moo néew mu téere bu ñuy wax naylul amaan gis mi wa ruxaani lépp lu ma la wax ci xam-xam bu ma ko gisu ci téere duma la ko wax gént ya mu am lu mu ko fa tegtal ne ko di ko jàng loolu duma ci dugg ci wa samaay wa taarixi ak yeneen yi mu ko fa wax waaye du sama kii kon doomaadama boo gis nelawam bëri 24 heures bi li ci ëpp da koy nelaw bu ko yëgee bu ko yëgu raj na xam ne bakkanam moo ko not bakkan bu la not nag musiba la kon nag xam naa ñun ñu suñ bakkan yi not bëri ndax ñun ñëpp ci nelaw rek lañ nekk wala kon man sama bopp kenn ëppum na ay nelaw kon mu ngi noon Seex Tijaan ne ko sa wirde moo bari mooy néew kon ndeke kuy sikkar lu bari dafay wàññi sa nelaw yu bëri ndax sax jar bu nañ ne ku nekk ci kurus ba nelaw fekk la ca da ngay gaaw a eew par rapport ak koo xam ne dafay seetaan ay xuraafaat ba nelaw fekk ko fa kooku bu eew digg ba ca rek la eew kon mu ngi noonu ñetteel bi ñetteeli noon bi ñeenteel bi mooy bànneexu bakkan muy wax ju bari wax ju bari joo xam ne jëmut ci alxuraan jëmut ci sikar jëmut ci lu jëm ci yàlla mooy koo xam ne daal fu mu toll mbel mbel mbel mbel mbel mu ngi wax rek fu nit ñi nekk rek moom moo leen di rek mooy mooy animé débat bi ñu ne diw moo saf xorom kon wax ju bari maanaam koo gis mu waxam bari rek ci lu dul jàng jàngale wala lu jëm ci diine wala luy jëriñ nit ñi rek kooku bànneexu bakkanam moo ko doon lii maanaam mag ñi moom lañuy ñu tënkee nasxadu nafsu ak seytaane mu ngi noonu ak duniya ak ak xawaa nasxadu lañ koy tënkee yooyu mooy gàllankoor nit moo tax nag ba mag ñi xamee lool bu ñu lay tegtal ci yoonu yàlla bunt yooyu la ñuy fexe ray ko ci yow bunt yooyu nag li ko mën a dindi ci nit ba mu dee takk mooy sikkar rek tudd yàlla rek salaatul faatiha rek lu bëri laa ilaaha illallaah lu bëri astaghfirullaah lu bëri moo taxoon bàyyi ne bi xii xaa wax xaala falaa tastaqiloo wa bi salaatul faatiha asqiloo wax ju bëri ji jaru ko damal wirda ji li ngay net di grand place di ko wax jël ko rek di ko def salaatul faatiha li maa xuliqa kon ñeent yaa ngi noonu nga xam ne ku ko mën a gut a rey buntu tasawoof managoo a àgg ci yàlla mooy àddina maanaam ak bakkan ak bànneexu bakkan ak saytaane bu ci ne na wax naa la li muy ñëwee nit inna laa naka yàlla xendoo nekk na fa moom kon saar waa ngi jeex suratul luqmaan yàlla moo xam maanaam elmu saati xam-xamu bis penc yàlla xam-xamu bis penc moo xam ne aay bi lu ko waral dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw ci yonent bi ku ñuy wax maanaam ibnu jaril mu jëlee ci ibnu abi atim mu ne mu jëlee ci mu jaar mu ne benn waaye dafa ñëw ci yonent ne ko sama soxna dafa ëmb wax ma kañ lay jur mu ngi noonu de suñ suñ dëkk ba dafa bekkoor wax ñu kañ lay taw wax ma fan laa juddoo ak kañ lay dee mu ngi noonu de yàlla wàcc aaya bi na laa naka yàlla xendoo nekk na fa moom xel mu saati maanaam xam-xamu bis penci yàlla moo ko xam mooy xay bi yaatul xam wayu nas wayu naslu dana mu wàccee alxaysa taw boobu itam yàlla moo ko xam ak kum ko xamal kañ la taw di taw loolu yàlla rek moo ko xam ak kim ko xamal ñëw na ci buxaari yu bi alayhi salaatu wasalaam hadis bi noonu la ñëwee juróom yi nga xam ne yàllaa ko xam waaye dàqante wut nag kum ko xamal ca xam-xambam ba nga xam ko waaye li mu bëgg a wax rek fii moom la yàlla di wax ne walaa yutuuna bi say min ilmihi xam-xamam ba kenn du ci am dara lu dul ku ko xamal kon nag am na ci ñoom ñoo xam ne dana leen xamal ci yu mel nii te loolu xam nañ ci lu bari jàng nañ ko ci histoire ñoo xam ne dañ daan wax mbir yu mel nii mu am comme ñu ko waxee ñooñ nag buñ demee ba toll foofu dootuñ fa nekkati yàlla moo fay nekk isa ahbabto kuntuhu yàlla mu ne ba ma la xasee ba bëgg damay mujj nekk yow mu ngi noonu kon ku ko xamal ca xam-xamam ba mu xam ko bu ko defee yàlla mu ne wa yàlla mu dana mu xam maa fil arhaami lu nekk ci xurum yi ndax kii góor la ëmb wala jigéen yàlla moo ko xam ak kum ko xamal wa maa tadri ak dana ko maanaam uh, xam nafsu ba bakkan maa saa la muy faagu xadan ëllëg luy xew suba yàlla moo ko xam ak kum ko xamal luy xew suba yàllaa ko xam ak kum xamal bari na mag ñu daan wax ne suba dara na xew wallahi niñ koy waxee noonu la amee ndax dañoo àgg ci fa isaa ahbabtoo kuntoo yàlla moo leen bëgg nekk di ñoom maanaam ci leeru yàlla la ñuy gisee yàlla nañu yàlla boole ci nit ñu kawe ñooñu kon yàlla nañu yàlla boole ci gaayam yi gaay yàlla yi raw nañ boo bëgg a raw rek maanaam bokk fexeel ba bokk ci gaay yàlla yi wala nga ànd ak ñu bokk ci gaay yàlla yi bu ko defee itam wa maa tadri xamul nafsun bakkan bi ay ardi ana ban suuf tamootu lay dee nit kese rek xamul fan lay deexee ina laa naka yàlla xali mun aji xam la lépp xabiirun aji xam la zaahir rek baatin muy deñ kumpa kon maanaam saaru luqmaan jeex na tombeek lu ñu mayoon ci waxtu jeex lu ci leer ci yàlla la lu ci lëndëm suñu gàtt xam-xam la ak ñàkk fasaa bu ko defee ñu ñëw rek trois minutes rek ci question yi ramadan trois minutes rek bu ko defee ñu ñëw ci question yi ramadaan yi ndax ñi ko laaj mu ngi noonu bu ko defee dañuy ñëw ci maanaam muddu koor ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko farataal maanaam buñ ne moo ko farataal yàlla moo ko xamal mu wax niñ koy joxe fuqaaw yi indi ko ci seen téere yi ñu bari di ñu ko laaj xalil mu ne yajibu bi sunnatin saawun aw jusxu anhu la an xóoti wa xóoti iyaalihi wa in bi tasallufin war maanaam joxe mu dem koor mu ngi noonu saa ngay joxe saa nag buñ ne ñaari kilo la ñaari kilo lañ koy xayma léeg-léeg mu teg tuuti mooy saa kon daal boo amee ñaari kilo ceeb mën naa nekk mu dem koor bu dee ci masabu imaam Malik nag mu du koor maanaam gis nga kenn du ko laaj fan yi bëri na joxe ci xaalis ci masa bu Malik waaye borom xam-xam yeneen yi ku mel ne na fii nii nangu nañ ko. ndax lépp lu matière am rek xaalis mën na ko ndax jamono yooyu xaalis dafa bariwutoon kon mën nga koo joxe ci xaalis bul wax na nag bul joxe ceeb bu gën a bon de déedéet jënd ceeb boo xam ne moo gën a yees ci ceeb yi loolu baaxul booy joxe da ngay joxe lu baax joxe lu digg doomu wala kilo ceeb bi gën a yees déedéet joxel kilo ceeb bi ne ci digg bi wala bi gën a baax waaye bu gën a moom bu ko joxe mukk kon loolu jar na bàyyi xel noonu bu ko defee ku am lu mën a añee ci bis ba rek la ca des kooku mën naa joxe mudu koor la an quuti wa quuti yi loolu la xalil wax xalil mu ne wa in bi tasallufin donte dafay leb kon loolu mooy laaj bu njëkk bi kon lu war la war gi ñëw ci alquran waaye ci sunna yonent bi sa alayhi moo ko waral bu ko defee maanaam kii mu dafa ma laaj ne ci luñ koy joxe danañ ko joxe ci dugub bu dee dëkk ba cere la ñuy dundee am na dëkk yoo xam ne li ëpp seen dund cere la mën nga koo joxe ci dugub bu dee li ëpp ca dëkk ba maanaam ceeb la ñuy dundee maanaam mën nga koo joxe ci ceeb ba ci fromage sax xalil indi na ko min mu'asarin aw aqitin xayra alasin kon yooyu mën nga ko jox xeer wi ñuy dundee daal waaye nag yooyu yëpp xayra maalik nangu nañ xaalis joxe ko xaalis xaalis boo ko joxee ku ne mën na cee jënd lu muy dundee keneen kii itam laaj na ma mu ne maanaam muddu koor kan nga kan lañ ko war a maanaam joxe dafa am utee ci fuqaawu maalik yi ku war gi waaye dafa am ñetti waxtu ma leeral la ko am na waxtul jawaas maanaam waxtu woo xam ne dafa dagan am na waxtul aada ak waxtul xadaa waxtul jawaas muddu koor mooy bu koor gi desee ñetti fan dagan na nga joxe ko ñoo na ci masa bu ñetti ñaar kon léegi tey ñu egsi ci bu ko defee waxtul aada nag moo utee am na ñu ne bu weer bi feeñee lii yépp nag mu ci téere yi man duma ma wax sama bànneexu bakkan xalil moo wax ne waxal bi awali laylatil aydin aw bi fajarin xilaaful heure bu weer bi feeñ ne buñ ne weer bi feeñ na maanaam foofu noona rek waxtu joxeem woor na fa foofu nag buñ ne war na fa kon bañ ne weer yi feeñ na kon xale bu fa juddu maanaam war nga koo joxeel ndax dafa war ba pare mu juddu aw bi fajarin xilaafun am na ñu ne déedéet maanaam ci xaruk fajar la ci xaruk fajar mu ngi noonu mooy bu fajar gi xaree te lu ëpp ci nit ñi dangay gis ne buñ xëyee bu ñuy julli ji fa lañ koy joxe te buñ ne foofu la kon koo xam ne dafa oor génn àddina maanaam weer bi feeñ na ci ci ci ci ci ci ci ci timis gi mu génn àddina ci gaxe gi boo sukkandikoo ci ñu ne maanaam xaru fajar la war kon kooku nga joxel ko ko war ko kon xilaaf bi foofu lay ñëw muqaddima indi na tàqale bi xalil mu ne waal bi awalil laylatil aydin aw bi fajarin xilaafun kon daal ñetti xaaj la waxtul jawaas ak waxtul aada ak waxtul xadaa waxtul xadaa mooy fay bu dee da ko amoon jamono yuñ ko war a joxe te joxe woo maanaam da ngay fay lawal mu ne min aqali bi xóotin li gën a not ca dunduwaa dëkk ba maanaam loolu ngay joxe mu du kon ñu góor góorgóorlu ci joxe mudd koor dafa baax mu ngi noonu addi sax ñëw na ne koor dañ koy aj boo joxewul mudd maanaam duñ ko aj duñ ko yóbbu mu mat doon donte addis bi am na ay ute ay gisi nag nangam waaye lu ci mën di am daal yonent bi jàngale na ne maanaam nañ joxe mudd koor bu ñu fi ñëwaatee suñu waxtaan yi danañ gën a tàllal waxtaan mudd koor yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp daf ko ci yéen seen laaj yi yëpp jot nañ ko ndax nit ñi toujours lu xew rek dañ ci yónnee seen laaj di ko laaj ndax bëgg nañoo xam seen diine ñu ngi nayu kilifa diine yépp di leen siyaare ci koor gi di ñaan yàlla maanaam li des ci koor gi ni yàlla ñu yàlla nangul suñu jaamu ci dara ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu borom kër gi Yuusu yàlla ko yàlla dolli tawfiq ak taysiir ñuy nayu suñu caméraman papi ak ñi ne ci récit bi yëpp laasana allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم